mbokki Sénégal mbokki réew mi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 ku xam port xam ne ëttul la boo xamante ni ay amateuru làmb bari nañ fi loolu moo waral tey wasaare làmb ñëw port ngir waxtaan ak yenn commerçant yi nga xamante ni dañuy dund làmb namm làmb loolu gëj a gis làmb moo waral tey ñu ñëw seet si leen laaj leen ci quelques combinaisons rek laaj leen quelques ci làmb kii moom tam mel ni sama mbokk taalibe la Fall maa ngi lay siyaar de. siyaar bu baax a baax la man Baye lañ may wax de Baye Fall moom wóor na. Ah, waaw Baye Fall rek. <laughs> waaw ah, Baye Fall Fall. Hmm. Hmm. Baye Fall da ngay seetaan làmb. waaw làmb de naa seetaan moom. Hmm. waaw bu baax sax. moo la gën a neex ci làmb. làmb li ma neex bari na. waaw mooy euh, euh, affaire culture yi ci am. ay affaire bàkku yeeg. surtout ma bàkku nag moom a gën a neex ci làmb. waaw bàkku moom neex na ma ci làmb. surtout naa bàkku ku ci mel ni Siteu Ama Balde. yooyu daal man moom laa gën di seetaan ci làmb ji moom waaw. combat Modou Lo Ama noo ko gisee. waaw combat la nag. combat la ndax euh, Modou Lo dafa doon mbër moo xam ne ni euh, lim man daa bëri daa mën a xeex mën a bëre Ama Baldé nag moom bëre mbërëntaan la te mbërëntaan moom foo ko fekk rek day naqaree bëreel waaw. Euh, Balla Gaye Bombardier. waaw loolu it combat bu neex a ngi noonu ndax Balla Gaye yaakaar naa ne ku xam Balla Gaye rek xam ko ci moom ak mën a bëre te bu loxoom bii xasee jàpp tànk action amul du bàyyi Bombardier nag yaakaar naa ne eh, ci côté bi ñu ko gën a séentoo mooy côté xeex bi mais bu dee ci côté bëre bi moom Balla gay laa jox foofu foo woon. Baye Fall yow <laughs> entraîneur nga wala la wala jaaykat nga. non du mais damaa xam làmb. Ah, damaa yàgg a siifur làmb di ko seetaan xam ci lu bëree bëree bëri. waaw xam naa làmb bu baax a baax a baax. jaajëf Baye Fall. waaw jaajëf jawriñ. Hmm. làmb huit kilos noo ko gisee. non làmb huit kilos nag euh, làmb moom bu ma sañan buñ ko dee def moom du doon huit kilos ndax huit kilos ci làmb moom. Euh, làmb dafa doon loo xam ne nii nun suñ cosaan la. te loo xam ne nii da ngay toog sa kër rek kenn bañ a dem. wax dëgg yàlla bu ma sañan daal état bi xool beneen kii bu mu ciy jël boo xam ne nii nit ñi dina mën a dem ja làmb ja. di ko comme euh, respecte missile barrière mais véhicule moom doxalul làmb quoi pour man ci sama gis-gis. gisoo gisuma lool daal. jaajëf ma waaw jaajëf. yi kon niñ leen ko defalee jóge nañ saa jóge nañ waaw am nañ autorisation da parce que est-ce que mayoo ñu que yow mayoo ñu autorisation. Ah, ah, dama laa bëggoon jël sax en tant que délégué ñu waxtaan <laughs> ah <laughs> jaajëf mbokk kon ñu ñu ngi taxaw benn waay xam naa ne danga may baal la fàttali ma tur tuuti. Bada. Bada maa ngi dëkk Bada dëkk Boox. waaw Réfane Boox waaw. waaw. Euh, Bada yow mbër nga. man. waa doon naa si yëngu nag mais pour l'instant nii moom yëngatuma si quoi. Hmm. lan moo tax nga bàyyi. xam nga làmb dafa metti hmm. il faut nga am ñu la jàppale. et bu fekkee ne da nga koo suivre rek mënoo am combat bëriwoo boobaa day métti quoi parce que soit yéen daanaka lamb ji booy xool par cinq personnes rek ñooy gagné lamb ji daanaka mbër yi ëpp dëgg dëgg dëgg dëgg mbëri ndaw yi gars yi xamuñu leen parce que boo limee Balla Gaye ngay lim Eumeu Sène Tapha Tine ay Boy Niang yooyu dootoo suivre jenn lamb nan jàppale xale yi nekk ci géej gi géej boo fa demee gone yi li ñuy daj day day day métti sa yaram. xanaa moo ne mbëri ndaw yi nii li ñuy daj ci entraînement mbëri mag yi sax dajuñu ko te làmb ji mënuñu see lekk dara dara dara dara. yow lan moo tax nga baay man li tax ma bàyyi. et dama demoon ba sama mère tere ma ko. ma dem nag ba. da nga daan bëre di daanu rek moo tax mère tere la ko. non wax dëgg si yàlla moom mosuma daanu moom. ñaata combat nga bëri. man bëri naa quatre combats. daan quatre yëpp. am naa ci deux victoires ak deux nuls. yeneen yeneen combat yi moom ay mbapat la nii rek nga dem combat yi nommé quoi. Euh, léegi fi mu toll nii noo gisee combat yi nga xamante ni euh, jot naa taxaw. ci mel ni Modou ak Ama Balde. Modou ak Ama Balde ah combat bu neex la moom. combat bu neex la mais man daal li may jooy moom bu ma sañan ñuy jël xale yu ndaw yi nga xam ne nii danoo nekk si làmb ji yaakaar làmb ji ma sañan ñu jël leen ñuy bëre quoi. moom daal jafe-jafe mooy mbër yu ndaw yi la bëgg. gaa yi may leen loxo ñu jug ci kaw. te mbër yi nag nañ jéem a wut métier. parce que làmb ji instant yi nii yàqu na. instant yi làmb ji temps mu toog lépp nit ñi bëriwunu ñu dara instant yi nii mbër mu fi amul métier foo jëm. man bëri naa boo yu ma xam yoo xam ne nii boo yoo xam ne nii bëreel bëre bi ñuy def sax mbër yu mag yi duñ ko def ñoo dàq bëre gaa yi fop mais mënuñoo génn amuñu ku leen jàppale. ñenn cinq personnes la ñuy jël aj leen si kaw promoteurs yi seen intérêt la ñuy xool mbër mu amul suba mbër mu amul tur la dëggal na ñuy génne xale yi di leen jàppale ñuy bëre parce que mbër yi bëri na trop mbër yi nga war a xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg génnuñu ñii bàyyi nan ñuy jaare nan fa bàyyi ñii voyagé nanu looloo looloo gën a rey làmb ji. làmb mën nañ ko def ci huis clos. làmb làmb ak huis clos ak huis clos moom ànduma moom ànd ànduma ji moom waaw parce que làmb mbër day bëre. Eh, kaay fii kaay eh. kaay. mbër day bëre. xanaa xamoo ne mbër day bëre. mbër day bëre stade bi fees dell parce que boo xoolee maa ngi la koy xoolal diggante euh, diggante Eumeu Sène ak Gris Bordeaux Eumeu Sène ak Gris Bordeaux Eumeu Sène ak Gris Bordeaux bi ko Gris Bordeaux dóoree dóori métti yi Eumeu Sène suur boobu ay supporters ñoo ko téye làmb bu fekkee ne yow da nga see nekk di bëre maanaam ñu def ko huis clos am na mbër yoo xam ne nii buñ gisee seen ay supporters dañuy gën am jom gën am fit mais am na si mbër yoo xam ne nii moom vie que arrange na leen parce que buñ amee combat nan daan bëree duñ si sensé dara buñ defee vie que nan daan bëree du si sensé dara waaw bu la neexee mën naa dulal seen tur. ñan la ku si mel ni la de Guiers. Lac de Guiers 2. vie arrangé na ko. parce que supporter du tax mu sensé dara si li muy bëre. bu ñuy wax vie que pour moom moo tax moom. la Lac de moom bu stade bépp feesan ni muy bëree du si sensé dara mais bu ko mel ne comme ça wala Eumeu Sène ñooñu ay seen su ay seen supporters ñoo leen di yokk jom yokku leen fit ak lépp parce que ñi nekk seen ginnaaw dinañ rus a def loo xam ne nii dina tax euh, euh, ñuy wane ak ay ñàkk fay daag yooyu quoi mais huis clos bi daal Lac de la gën a arrangé waaw Lac de Guiers 2. jaajëfal bu baax a baax a baax ana ana kama doon woo. kan la. nga takk masque am de. <laughs> waaw waaw lu xew. profité nga takk sa masque. waaw lu xew laay laaj. ah yow nga da nga doon kii ci masque mais damaa gisul marché bi ngeen takk masque. Euh, non man takk naa masque bu yàgg masque chaque jour li ma ci yor day ëpp set masque si samay poche. Hmm. waaw. noo def ak coono. sant Mawlana ak baal ma fàttali ma tur bi tuuti. Moustapha Diop. Moustapha Diop waaw. Moustapha Diop da ngay suivre làmb. Lamb daanaa ko suivre nag waaye xaw naa bàyyi naa ko politique daal laay def fi mu toll nii. waaw waaye xam naa ci Barthélémy Dias. Mbaye Lamine waaw fan fan la dëkk moom Barthélémy. maire mu Sacré-Cœur. Ah, waaw fan nga dëkk. man maa ngi dëkk Dakar Plateau gii. Ah. waaw. ah kon loolu mais lamb noo ko gisee actuellement. non lamb moom fi mu toll nii xam naa ne virus ba daa dem man ci sama gis-gis. virus waaw. baatu corona ko yóbbu. non yi ñoo dundatul lamb rek. Hmm. parce que dafa neexatul. mbër yoo fi mënoon a bëree nekkatuñu ci làmb ji seeni licence jeex na. non ñi fi mënoon bëree ba tey ñu ngi fi. non non. la. ñu yoroon xorom si dem na baabooy ci ñu yoroon xorom as làmb la. Hmm. te gisatuma ko. Hmm. rawatina Yékini Yaxya Jóob. Hmm. te ñooñu gisatuma leen. ñoom bari bari bari plus ñoom ñaar dong ñoo ñooñu ñooñu ci ñu yor xo ñooñu bañ génne làmb la làmb boo xoolee li ma la wax ba tey 2012 ba tey làmb dafay sooxee. 2012 ba tey nag boo xoolee saison bu ñëw day gën a uti suuf comme bi nga passé. mel ne saison wu corona rek. Ah, noonu la demee 2012 nag ba tey laa la wax bu fekkee amateuru làmb ga 2012 ba tey jii làmb dafa deltu ginnaaw. Ah. waaw. Ah, loolu de yéeme na moom. waaw. moo nekkoon sa mbër man Baboy moo doonoon sama mbër. la gënoon neex ci li ma gënoon a neex ci moom lu ma lépp lu ma musaan a xat-xatloog sama moroomi supporter fii bu bis ba mu indil ma ci ndam. musu moo la gën a neex ci combat. combat am moo Gris Bordeaux moom moo ci gën a neex. waaw yëpp moo Gris Bordeaux moom ci gën a neex waaw. kon baax na ñu lay jaajëfal bu baax. waaw jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm. Abdou looy laqatu. non laqatu ma gaynde gi laqatu de. Abdou bu Ama Balde wala Abdou bu Pikine. non Abdou Ba Pikine la Abdou Ba Ama Balde hmm. waaw. noo gisee làmb. làmb waa actuellement moom état war na siy jàpp bu baax a baax a baax. Hmm. waaw waaw donte nag fépp la crise mondiale la adduna bi yëpp la. Hmm. mais état war nañ gën a jàppale gars si lépp. waaw muy woykat yi liggéeykat yi ñëpp si àdduna war nañ leen jàppale mais nag lu suñ borom wàcce la dañuy nungu dogal bi santaat si bu baax a baax a baax waaw xam ne moom lu mu def daa gën mais daal yàlla dem si jàmm rek 2021 ñëw. Maodo 2021 bu góorgóorloo tuuti raw 2020. waaw moom bu bu yëkkatee tànkam rek da koy raw. waaw mais nag sant rek borom bi moom. mooy xool li ko soob. ak li ko neex mu def ko. Abdou boo Ama Balde Modou Lo noo ko gisee. Balde Modou Lo la. làmb la ci kan te ju ñu bëggal suñu bopp la. man su ma dee joxe dama naa làmb Ama Balde la. lu tax mu doo làmb Ama. parce que fu nekk la ñu ànd mu tëkk ko. da kaa tëkku fu nekk. donte boobu esprit booy la te làmb la leen a boole dafa yàgg bëgg ñu bëre. waaw mais nag garab si kaw lay fekkante Amada rampe ba yàlla boole ko ak Modou Lo Modou nag la ndaanaan ku lu fadil la dañ ko koy nungul waaw man su ma doon su ma doon jox sax dama laay jox soixante dix pour cent. waaw jox ama 30 yi. waaye bu arbitre soufflé bu soobee suñu borom soixante dix dina da wuy si 30 yi. loolu nga jàpp. waaw loolu laa gis man. Euh, Balla Gaye Bombardier Balla Gaye Bombardier làmb la Balla Gaye Bombardier def ka daanoon Balla Gaye ñëwaat waat ba ñëwaat lu mu koy waxaat moom moom mu gën a xamaat fu muy teg tànkam rek waaw loolu dong laa koy wax Bombardier moom xam nga rek mooy loolu. la de Guiers 2 Eumeu Sène. Lac de Guiers 2 Eumeu Sène. Lac de Guiers 2 Eumeu Sène moom wax dëgg yàlla man Pikine laay dund ginnaaru Pikine ak feneen sax ginnaaru Pikine laay faral yàlla na ko Eumeu Sène daan mën na ko joxaat cër waaw ndax mbër moom bu amee doole mu na rasu waaw da xam noo koy joxe cër rek waaw. combat Ama Balde Modou pare ngeen pour ñu def ko pay per wala ñu def ko huis clos boog. huis clos kooku ça dépend si promoteur bi ko organisé. waaw mais ñun pare nañ pour lépp ñun daal couronne bi moom jàpp nañ ne mun ngi technopole di ñu dégg si EDK bi. technopole ci EDK bi. waaw yéen ko fa teg wala dañ leen ko fa teg. dañ ko fay teg incha allah rabbi bu soobee suñu borom. bu bu dee jom ngor fula fayda ak li làmbal laaj. loolu lu li ñuy wax rek laa koy dëggalal si boppam ki gën a nekk xale. waaw ki gën a nekk xale. daa ko bëre. daa ko xeex ëpp sañ-sañ gën a bëgg làmb yàlla na ko yàlla jox làmb xam naa Ama da koy jël incha allah. <laughs> waaw Pikine yi ñu ngi gëm gëm de ana kan kan laa ci war a teg koo ma ci war a tegal. <laughs> ana maam góor bu Ama Baldé kan la. maam góor. ah góor maa lay siyaar de. grand frère delloo nañ la ziar bi. bu yaa ngi am jàmm waaw maa ngi sant bu wér a wér a wér. noo gisee làmb làmb waaw ah, instant de làmb moom wax dëgg yàlla dafa mel ne lu fay ndax euh, gëj nañ caa dem te it euh, gëj nañ cee gëj nañ cee yëngu daal booy xool. waaw làmb ji moom vraiment temps yi doxul dara dara dara menam Ama Baldé doo nga ko mën a doxal di yàlla moo ak Balla ci li ma xalaat man. Hmm. man daa amul daal supporter Ama Baldé yi ñu teg Ama Baldé moom teguñu ko kenn xam nga nit nit euh, bu la dee woon ngay gis. Hmm. muy jëf ngay gis. Hmm. kooku pour nga teg ko fenn day yomb. waaw parce que lu nu wax lu nekk da koy def ci kàttanu yàlla. te lépp lu nu wax Massa wax def na ko. bi 128 la sama room. waaw lépp lu mu Massa wax def na ko te it euh, ba ñuy ànd ak moom ba léegi mosunoo gis mu def loo xam mu wax loo xamante ne bii defu ko kon kooku booy ànd ak moom am naa yaakaar ne. Euh, ànd bu neex a neex ngeen di ànd. nit ku wax waaw Ama Baldé Modou Lo ànd ngeen bu leen neexee suba bu ñu def ko sax suba euh, dimanche bii nu jëm def ko huis clos dimanche bii ñu jëm barke Serigne Touba dimanche bii ñu jëm bu leen neexee ñu def ko ci def ko huis clos ci kàttanu suñ borom buñ paree dañ bu yàgg yàgg yàgg amuñu leen luñ cee xalaat ci loolu. ama seen bo euh, laaj da ngeen noo gisee. foofu moom du ma fa sori. ñoom ñaari mbër yooyu du ma sori ci seen wax quoi wax dëgg yàlla. waaw ndax xamal xamaluma leen xamaluma leen lu bari wax dëgg yàlla xamaluma leen seen bëre dara dara non dama leen di seetaan sax mais man li ma ñor a ma ñor li ma ñoruma kenn rek ma ñor muy Ama Baldé bu bàyyi woon bëre dootuma seetaan bëre barke Seexul Xadim maa la wax loolu bu demoon bu demoon ba bàyyi hmm. dootuma seetaan maanaam stade dootuma fa dem te dootuma tax sax teel di seetaan bëre hmm. barke yonante bi Bombardier waaw Bombardier Balla Gaye sama mbokk laay faral noddu ko bandum Balla gay laa faral xam nga ne kooku jaratul ñuy wax. combat boobu noo Balla dëgg ne ko duma dina ko daan. ci kat da koo daanoon dama ne da koo daanoon mais revanche lañ jël si. ab si ci kooku xam nga ne revanche bi du yomb. Bombardier fépp fu mu mënta di dem si boobu mu dem fa lu mu mën dina ko entraîné ci yaramam. bu soobee suñ borom dinañ ko duma ba noppi daan ko. ci kàttanu yàlla loolu man maam góor maa la ko wax. jërëjëf maam góor maa lay jaajëfal bu baax bu la neexee